Mamadou Sy Albert euh, ñu ngi lay nuyu. maa euh, may fàttali ne yow analyse politique nga doon tey suñu gan euh, ci matinal mi FM ñu dooreek politique bi nga xam ne tey Moustapha Diakhaté mi ñu dàq ci APR mooy actualité moom mu doon tamit membre fondateur ci parti boobule ci wàllum forme foog nga ni procédure bu normal la ñu jël ngir dàq ko ci parti bi. déedéet du procédure normale parce que parti bu nekk muy parti bu nekk ci nguur wala muy parti bu nekk ci opposition parti yépp dañu am procédure. Mhm. Euh, commission de discipline. Euh, bu bu APR ñeneen ñi PS am na PDS parti yëpp am nañu commission de discipline. Mhm. commission de discipline warul jël décision ndax commission de discipline lu gën a am maanaam moom li muy gérer mooy conflit. conflit bu amee ci biir parti bi. Mhm. Euh, diggante benn militant ak parti bi wala benn wala diggante sax ñaari militant. Mhm. commission conflit bi moo war a toog saytu. day saytu commission de discipline day saytu du jël décision li mu mën a def mooy déglu ki nga xam ne dañ ko tuumaal wala ki nga xam ne am d'accordul ak parti bi. Mhm. déglu ko bu ko dégloo ba pare léegi moo commission boobu ak président ñoo war a jox euh, direction bi. moom mooy muy secrétaire exécutif muy muy commité national en tout cas dañ ko war a euh, analyse bu baax jox ko direction direction moo war a décider da dax dax militant du décision final la décision bu grave la parce que doo am benn recours donc loolu lu muy firnde mooy que euh, commission APR bi de euh, le de procédure bi jaarul jaarul jot dañu waroon déglu Moustapha buñ ko dégloo bu baax ñu xam ne lu tax moom lu muy def lu muy def. Mm-hmm. Euh, ñu ñu ñu ñu ñu convoqué instance bi nga xam ne mooy direction APR direction APR nag su su waxtaanee Moustapha toog ñu déglu ko mais ñoom mën mën nañu déglu Moustapha ñu jël décision nekk yow bokkutoo ci suñu parti. kon daal da jàpp ne dañ koo def ci manière légère. déedéet du manière légère parce que boo boo dégloo boo liiree presse bi lu ñuy wax. mooy mm-hmm. que président euh, Macky Sall euh, dugal na loo xam ci ci ci ci. ndaje boobu. Mhm. président à la limite moom moo décidé pour ñu ndax ko et président parti warul dugg ci loolu. Euh, la commission bi euh, commission de de gestion de conflit la euh, dafa war a déglu comme nu mu dégloo ñeneen ñi. Mhm. dafa war a déglu ñëpp. maintenant président waru ko jël loo du loolu loolu moo tax parti bi parti yëpp di am problème. Mhm. dañu war a bàyyi instance yi am nañu statut am nañu règlement intérieur dañ nañu respecté. signé seen euh, statut ak seen règlement intérieur mm-hmm. ñu bañ a euh, utiliser institution les ligues euh, pour man daal euh, dafa mel ni Macky Sall président APR dafa utiliser commission discipline pour dàq loolu loolu c'est pas régulier te baaxul ci fonctionnement parti politique. gis nañ ne moom moomu di Moustapha Diakhaté dafa jël ay position yu critique waaye du moom dong ci boobule parti ndax euh, jàppoo ne tey tamit dàq giñ ko dàq mën na am ay njeexital ci ëllëgu parti bi. dina am. parce que euh, Moustapha Diakhaté moom militant la dafa yàgg ànd ak euh, ak ak mhm. APR mhm. bon ñun ñëpp xam nañ ni bokk na ci membre fondateur yi te euh, boo xoolee Macky jël ko président groupe parlementaire mhm. ci premier assemblée nationale bu Macky 1 quand am na amoon na conscience ak moom militant la responsable donc kooku soo ko dàqee te amoo nangoo def débat de ñen ñeneen ñi dañ dañu gën a ragal dañu gën a ragal te soo moytul suñu bañee débat bi Moustapha mën na am influence ci ñooñu mhm. euh, donc Moustapha liñ ko dàq ni ñu bari tey ji dinañu am xel ñaar est-ce que dinañu toog ba dal Moustapha dal den est dañuy jël euh, seen euh, pula ak seen pade mhm. dem rejoindre Moustapha loolu loolu aussi lu ñu mën a sóoraale la mais image parti bi aussi dina yàqu. Mm-hmm. ah ndax Moustapha gi nga xam ne moom presque Baye Fall Macky Sall ngay nga dàq ko parce que simplement que li muy wax neexu la bon loolu euh, du image du image bu baax opinion bi boo moytul daal dinañu bàyyi gën a bàyyi xel ci Moustapha li muy wax. Mamadou si Albert gis nañ ne Moustapha Diakhaté lii du lu bees ci moom ndax euh, bu ñu fàttale ko ay at ci ginnaaw euh, jëm ci parti Abdoulaye Wade moom bàyyi woon nag lakke woon na la porte comme ni ko nasaraan bi di waxee waaye tey jii gis nañ ne APR conseil mais teewul moo ngi ca ngoy ne moom moo nga ca euh, tey la ci gën a am wàll nan nga jàngatee mbir moomu le waaw mooy mooy mooy mooy militant la. Mhm. Euh, euh, moom dafa am engagement nit nit entier la. ah loolu la wane woon ci PDS loolu la wane ci ci APR te buy engagé day day mhm. wante aussi nit ki nga xam ne bon su amee li li nga xam ne lii gëma daf koy wax mhm. donc mooy militant libre de de militants bi nga xam ne dañ dañ leen di jëlee comme ay des militants indisciplinés. fekk nag du indiscipline seen seen melokaan moo mel noonu suñu engagé dañuy engagé mais suñu gisee li nga xam ne li wóoru leen am nañu kàttan pour wax lu leen di metti eh, defe naa loolu moo tax euh, moom bëggul wax ni que bàyyi na APR dafa militant la responsable la bëgg na bokk ci APR mais dafa bëgg beneen melokaan APR def naa loolu moom lu lu lu lu lu xaw a lu xaw a leer ci boppam que moom euh, defu mës a nekk APR APR la la la a nekk la bëgg a doon léegi nag comme dàq nañ ko c'est sûr et certain que bon day créer mouvement bi mu wax ne dina ko créer. ndax APR war naa mën a tiit tey jii ci taxawaay Moustapha Diakhaté. ndax mën na doon menace waaw ah, menace la du mais du menace euh, amul doole pour euh, pour euh, pour xoqatal Macky Sall président APR. Mm-hmm. amul doole pour déstabiliser APR du responsable comme ni ñu doon gis Idrissa Seck dem PDS am problème wala Macky Sall dem PDS am amul doole boobu. Mm-hmm. wante doole moom mooy wax ji. ku gëm politique la. ku am confiance ci boppam la te aussi euh, fi mu teg tànkam nuur la li nga xam ne xel sénégalais yi mën nañ ko nangul li muy wax lu am la donc loolu mooy influence militant politique la c'est vrai mais surtout fu muy mën a gaañ APR daal mooy influence bi mu nar a am dina gën a discréditer euh, président APR dina gën a discréditer aussi fonctionnement APR. Mm-hmm. te te euh, lu ñu APR dañu dañ ci war bàyyi xel. xëy na am na ñi nga xam ne euh, tey jii Moustapha li muy wax ànd nañ ci ëllëg mën nañu dem ñu ñu ñu ñu ñu fekk ci Moustapha. moom moom la Moustapha doon militant euh, parti au pouvoir waaye taxawaayam ñu gën ko nemmeeku euh, ci taxawaayu opposant boobu boobule sax tey jii kenn déggatu ko nan nga jàngatee euh, noppi wala cell gi nga xam ne opposition bi seetlu nañ ko ci moom rawatina gi nga xam ne ñoo nekkoon ci coalition Idy 2019. waaw ah, opposition bi moom dafay calculer dialogue bi ñoom ñëpp nee nañu à Sonko ak PDS ñoom ñëpp d' accord nañ ci ci dialogue bi mais soo gisee ñoom ñëpp ñu d' accord te fekk bi ñu génnee ci élection yi comme ni nga ko waxee réew mi mhm. réew mi dafa reconnaître sax président de la république ba tey ji donc nga nekk candidat nga dem ci élection ñu gañe la yow nga nekk élection bi jaa jaarul yoon nga ne kii ñu tànn d'accord ci du légitime du candidat du président légitime sooy dem dialogue mais da nga waroon indi ak con poser condition defe naa loolu moo manqué opposition bi euh, dem dem na dialogue mais teywul dara ah loolu moo tax te ñoom dafa mel ni daal euh, Macky Sall mhm. moo leen ëpp euh, tey ji influence parce que dem na ba naxante ak ñoom ba indi leen ci ci dialogue bi suñu suñu moytul li leen nar a dal mooy que Sonko mi nga xam ne nee na moom bokk ci benn jalo xaaru ci dara mhm. euh, Sonko bu moytu dina am dëgg ci ñoom te loolu euh, baaxul ci ci Idrissa Seck baaxul ci PDS baaxul ci opposition bi parce que jaloog dialogue naxe mbaay euh, li li mu jëral opposition bi mooy dinañ gën a dina gën a diviser te du ñu amati influence ci opinion bi dañuy perdre crédit defe naa daal ñu calculer mais soo suñu moytul Euh, président APR ak président la République comme moo organise dialogue bi dialogue bi soo moytul daal euh, moom moo gën a am euh, moo nar am ndam ci ci dialogue bi. Idrissa Seck mooy gaa euh, ki nga xam ne moo ci gën a fës waaye am na ñeneen ñi nga xam ne kenn déggatu leen fenn ku ci mel ni gàtt i sa Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi woon ci boobule coalition tey jii ndax sénégalais yi mën nañoo jàpp ne ñoo ñu euh, jaratul ñuy wax seen mbir jëm ci politique. déedéet muy gàkku muy muy Sall muy euh, même ki nga xam ne bokk ci woon mooy Khalifa situation bu ñu nekk nii. mooy que situation euh, génération la. Mhm. ah xam nañ ne que muy gouverner euh, ci yoon bu ñu jaaree ci yoon Macky Sall day dem euh, vingt quatre du nekk candidat ñoom ñëpp tey ji loolu lañu ñu sóoraale da dañ dañ dañuy calculer fii ak deux mille vingt quatre nañuy fexe pour ñu jël pouvoir bi. Mhm. Gakou xale la yàggul yàgg na ci politique mais am na expérience mais li mu gis ci élection yi deux mille dix neuf bi dafa gën a da da. il faut nécessairement mu gën a préparer wu euh, Sall si naka noonu Sonko naka noonu Idrissa Seck mooy ki nga xam ne moo gën a expérience boo gisee sax moom moo gën a téye parce que xam na ne situation bi dafa laaj euh, euh, moo mu gën a téye mu gën mu gën a dal mu gën a xool position majorité bi naka la nar a demee fii ak dialogue bi mais muy bàyyi xel aussi ci ñoom Gakou ak ñoom xalifa donc xaj euh, Idrissa Seck ku am expérience la xam na ne période bi warul warul warul warul nekk ci gannaaw euh, ci ci kanam politique bi dafa war a seet da gën a dal xool ba xam fan la mën a teg euh, tànkam donc ñoom ñëpp soo xoolee dañuy calculer ku nekk am na lal na stratégie mais pour ñu déployer ci stratégie bi mhm. ñoom ñëpp tey ji lu ñuy xaar mooy dialogue bi bu jeexee ban conclusion nan la la la ci nar a moo ci nar a génn ak Macky fan la fan la nar a dem. su ñu amee conclusion dialogue bi. Uh-huh. ñu am euh, direction Macky Sall c'est sûr et certain que recomposition politique dina amaat ci ci Sénégal. dialogue boobule sax am na ñenn ñu jàpp ne euh, euh, ñi nekk ci société civile bi jàpp ne opposition bi waru fa woon sax teg tànkam noo jàngatee wax jooju. parce que société civile bi gis na enjeu bi ah parce que bu fekkente ni dialogue bi yow gëmoo ko waroo dem. fekkente aussi gëm nga dialogue bi nga dem nga nekk opposition booy dem dialogue da nga indaale dara soo indaalewul euh, li nga xam ne dina nekk dialogue parce que dialogue pouvoir ak opposition mooy que pouvoir bi mu ne la man lii ak lii ak lii nii laa gisee dialogue bi mhm. yow opposition bi nga ñëw nga ne man nii ak nii ak nii laa ko gisee donc il faut mu am divergence ak proposition divergence ak proposition mooy indi waxtaan bi mais soo demee dialogue yow amoo benn proposition cohérente ku nekk dafay mais président bi majorité bi moom moo moo nar a am moo nar am ndam je crois que société civile bi lu mu wax lu lu lu lu ñu mën a nangu dialogue politique vraiment dafa dafa laaj maturité balaa ngay dem dialogue na nga defaru nanga nga nga ñëw ak proposition ñu xam ne ne yow am nga proposition que suba suñu la éli élire ñu xam ne yow lan nga bëgg a def mais su ñu demee nii rek soo moytul daal Euh, Naxe Mbaye la gën nuroo. Mamadou Sy Albert merci. merci beaucoup. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di fàttali ne yow yaa doonoon suñu gan tey jii ci invité réew mi FM merci beaucoup.